salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi daara ji ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare mbokk mi di leerlu ne démb laaj bi nga xam ne moo jëmoon ci jinne ak li ñuy woowee dëmm ak leeral yéen ca defoon muy laaj ndax kon takk soxna si jinne dagan na wala déet ndax doomu aadama mën naa sëy ak jinne ak it su fekkee def gi dagan na naka la loolu mën a nekke tontu li mooy loolu fuqahaa yi wute nañ ci borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu bari am na ci ñoo xam ne dañoo wax ne loolu dëgganut am ci ñu wax ne dagan na mënees na ko def am ñu wax ne dañ koo sib am ñu wax ne daal bañ koy def moo gën def ko ndax ginnaaw suñu borom subhanahu wa ci alquran daa waxoon ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajal li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddata wa rahma gannaaw yàlla min anfusikum la wax daal kon li gën mooy doomu aadama di takk aw xeetam comme moom te mooy moromu aadamaam am ci ñoom it ñu wax ne ahkaam charia yi mooy atte yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala da koo sant doomu aadama da cee bari lool loo xam ne engagé wul jinne ndax xam nga doomu aadama bu xasee nekk jullit am na luñ ko sant am na luñ koy tere am na luñ ko digal bu yoree soxna it moo ko wara a dëkkal dëkkoo ko di ko dundal di ko wodd doomu aadama la sant koor di ko sant aj màkk su ko manee te yooyu yépp di ay atte amul lenn lu ci engagé jinne donte jinne day jaamu yàlla comme ni doomu aadama di jaamoo yàlla wa ma xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudun waaye nag seen façon jaamu wiin ak ñun dañuy jaamoo yàlla bokkut ahkam shar'iyya yi nga xam ne moo tege ci kaw doomu adama bi su xasee nekk jullit mu war koo jëfe buy dund mu engage ko bu fi jógee ñu war ko ko defal loolu lépp amul lenn lu ci engage jinne nit buy dund day am lu ko war ci soxnaam moom bu fi jóge itam dañ koy miiras dajale alalam yi alalam yëpp dañ koy séddale te yooyu yëpp amul ci jinne looloo tax itam ñu wax ne kon bañ koo def moo gën def ko kon wuute googu ci am daa jëm ci ndax warees na koo def wala wareesu koo def waaye ndax mën naa nekk mënta nekk moom amul wuute mën naa nekk ndax am na mbokk moo xam ne fii ñuy waxe yor na soxna jinne ba am na ci doom kon mën naa nekk mënta nekk moom du mbir mi waaye mbir mi dëgg mooy ndax dagan naam dëgganut ak sa su amee ba noppee ca war a topp ne ay àtte tam engagé doomu aadama te doomu aadama ak jinne bokkum ñu leen yàlla binde ku nekk lañ la sant ak fañ la jaarloo donte jaamu yàlla gi moom ñoo ko bokk ba tey bokk na ci li tàqale diggante doomu aadama ak jinne mooy doomu aadama day soxla xaalis ndax xaalis moyen la ci moom ndax daa bari lool loo xam ne da ko war a def te bu yorut xaalis du ko man am nay jaamu yàlla yu ko yàlla sant yoo xam ne ci xaalis la koy mane aj màkka li muy baax baax nekk benn ponk ci lislaam ku yorut xaalis doo ko man xaalis koy def génn asaka li muy baax baax nekk ponk ci lislaam boo yorut xaalis doo ko man dëkkal sa soxna dëkkoo ko di ko dundal di ko wadd di ko taxawu di taxawu say njaboot lépp xaalis a koy def boo ko yorut doo ko man kon doomu aadama day yittewoo xaalis ndax moyen la ci moom bu koy permettre mën a àgg ci lim bëgg bu dee jinne nag xaalis ak ay xeer ñoo bokk yam ci moom aajo woowu ko ndax moom yàlla da ko moo ñaale ak moyen ndax jinne fu mu bëgg a dëkk mën na faa dëkk fu mu bëgg a dem mën na faa dem distance amul ci moom ak foofa lu mu sori sori lu mu bëgg a soppi ko ba mu bëgg ko meloo mën na koo mel doomu adama su bëggoon a tukki rek day yitte woo paas yéeg ak wàcc dugg ak génn ba keroog muy àgg fu mu jëm te loolu fekk ci jinne jinne saa boo ko laajee xaalis mu jox la ko rek jàppal na ci lemu jàmbur la dem lemmi indi la kon da koo sàcc waaye moom aaji woowul xaalis ba di ko yor ak di ko denc ba nga di ko laaj mu di la ko jox kon foofu it dañ fee wuute te boo ko doon topp ci domaine yu baree bari noonu la ci wuuteeg doomu aadama ndax ni ko yàlla bindeek ni mu bindee doomu aadama bokkul. jinne nag fépp fu ñu leen di sampale ay xàmb di leen fa defal ay tuur dañ fay gën a bari dañ fay gën a tasaaroo mën nañoo dem ba am fa ay sët di fa dund ka leen yoroon saa demee ba faatu it dañuy jàll ci ay njabootam mo xam nangu nañ ko mo xam wuñ ko faaw ñu adapté leen man nañu dem sax ba di leen sante ay sacrifice rayal nangam gennel nangam sarxel nangam te digle yoy ñu lay digal lo ci bayyi mo xam dang ko koo mo xam ya ko tay dañ la fitnal dañ lay top ci ngir dund ndax jinne da mëna gudd fan limi dund asaka ja doomu du ko dund bo fi it dañ topu ñang fi bayyi léegi-léegi ñu ne la am na ko fi war a ñëw col ko gu mel sàngam lay sol bu ñëwee dana la wax nangam ak nangam ndax nangam moo ko yëkkati waaye ba la nee nangam nee ko nangam kooku melokaan sàngam la mel ci penk bi lay jóge wala soowu bi wala ndeyjoor ba càmmoñ su ko defee kooka bu dikkee nga ne danga koy seetal su waxee ba bàyyi nga daal koy jot li liñ la waxoon lépp fekk loolu lépp dañ la koy jàppale ne ay renseignement pour nga gën leen a mën a jàppale ci di leen neexal buñ soxlaa deret moo xam mala la wala leneen nga def bu ñu soxlaa ab sarax nga defal leen ñu lay jàppale ay renseignement ci sab liggéey kon day mel ni ànduk intere la ngoo xam ne intérêt boobu lu ca dañ lu néew néew danañ ko jëf ak yow moo xam yaa yaa ko tey bàyyi ko moo xam da nga ko fàtte boo fi jógee ñu topp sa njaboot moo tax ànd ak ñoom dara gënu koo nekk ak wóoradi ki koy def suñ ne ànd ak ñoom nag dañ cee jublu jinne seytaane yi waaye bu dee jinne yi nga xam ne kay ay jullit lañ di topp ndigal di bàyyi tere di jaamu yàlla ñoo ñu wëllëranteeg ñoom jàppateeg ñoom dara ne wujj jamono bii nu toll am na ñoo xam ne xamante nañu ay jinne wëllëranteeg ñoom ñu leen di sax fréquenté léegi-léegi ñu ñëw ci ñoom dikke leen melo wu xam ndax jinne saa bu la bëggee saay saaye bëgg laa jommal la lay dikk ci melo wudul àttan waaye saa boo xamee ne ni sa diggante moom yàlla kese ko lal tam doon kuy dox ci mbaax bu ngeen jàppante du la lor def dara mën na lay fere kante ngeen di waxtaan léeg mën nga koo laaj dara ci ñoom wala ab kuréel ci ñoom mu leeral la lépp kon bu naan jàppante ak ñoom amul kaaraange mooy jinne seytaane yi lañ jub la wax ñu gëmut yàlla toppuñ ko di dunde deret ak ndawal te xamewuñ ci gu doomu aadama ak gu mala kon ngir daaneel képp ko xam ne daal yaa ngi dund ci àdduna da ngay bàyyi xel ne rek am na ñoo fi nekkal ñoo xam ne yaa ngi leen di teg bët mu bari lool ñoo fi nekkal ci ay mbindeef yoo tegul bët yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla moo ko yónni woon xamal ko lu nit ñi xamut taxoon na mu joxe woon ay muslaay ak ay kaaraange yu bari ngir nit ki di ko def ci buy tëdd ñu bari guddi bu ñuy tëdd dañu nekk seen ordinateur wala seen téléphone ba gëmmentu daa koy teg tëdd waaye duñ léemu duñ def dara kon di léemu ci léemaay yi nga xam ne dañ koo jàngale mu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci yi nga xam ne danga ko war a def ci suba yeeg ngoon yeeg booy tëdd booy dugg ci duusak ba ci booy sëy ak sa soxna sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ca allahuma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma rasaqtana kon bàyyiwul dara waaye yooyu ci bare bari nit ñi dañ koy sàggane te yooyu kaaraange la ci doomu aadama bi ñaaral ba li gën a nekk ak wóoradi mooy jigéen joo xam ne dafa toll ab diggante ëmb bu toll ci ñetti weer jàpp ñeent ngay dem di sangu ji ci biir géej rawatina ci dëkk yi nga xam ne jinne seytaane yi dañ faa gën a tasaaroo muy dëkk yi ñu leen di sampale ay xàmbu baa ñu leen fay tuural tam ami tefes ndax sangu ci géej ndax jinne dañoo séddalikoo ay kuréel am na ci ñoom ñu dëkk ci biir géej gi am na ci ñoom ñu dëkk ci jaww ji am ci ñoom ñu dëkk ci jéeri ji te nit ki nga xam ne bu xale juddoo dañ koy soxla ngir mën ko adapté ci seen bopp xale it su nekkee ci biiru way juram toll ci wara formé wu ñett weer ñant jëm kaw te nekkul doom adama 100% man nañ dugg soppi ko ci biiru way juram te loolu baaxoo nañ ko jaare ci ki ëmbu dugg ci biir geej gi ci sangu ci yenn barab yi du yëpp ndax bu dee tubaab yi ci seen dëkk yi ñoo dàq sangu ci géej tàngaay ak lu dul tàngaay te loolu ëmu ca ñoom la ko waral mooy foofa ay tuuraki xàmb ëmu fa dekk tuba bi jafé na lool nga dugg fa fenn ba fekk fa luñ fay samp diko mandar gané li ay tour la ay ki xam lañ koy sampal du sen culture du sen ada waye fi ci Afrique rawatina Sénégal na ci yenn dekk yi lool dafa tasaaroo da fu mel non nañ fay mëna bari ta ki toll ci digënté ëmbu ñatt wër ñant man nañ ko lor bu baaxa baax ci lim ëmbu mo waral ngay gis xalé juddu dal di walé malformation indi walé melokan wo ne ay waajuram dañu xam xel li ne kii ak nitam des na baa sax jëmm ji mel ni mu war a mel mu daal di màgg ànd ki àndandoo mën naa dem ba nekk magum jëmm dem ba làq fukki at jëm kaw wala fukki at ak juróom di tuur ndox yooyu yëpp bokk na ci yi koy indi mooy topp guñ ko yàgg a topp dund ak moom ba dugal ci moom malformation wala mu judd ñu continuer di ko topp kon loolu lu jara moytu la jigéen ñi nga xam ne dañu toll diggante ñett weer ñeent di sangu ci géej te amuñ benn kaaraange rawat na ci yenn barab yi lu ci solution bi rek mooy fonk muslaay yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du jàngale dara ci asaar loo xam ne da ko jàngale rek te leneen njariñ lu tax mu di ko jàngale du def loolu ndax lu ci nekk yàlla daf koy xamal ci xamalin woo xamee ne ni ku dul moom doo ko xam ba tax mu joxe ay digle ay ndénkaan ay ñaan yoo xam ne yëpp mat naa xam te di ko fonk di ko def يتحاولوا فوفو جالتي ينن لا دف السلام عليكم ورحمة الله